waaw salam maa ngi nuyu wa Senejet Senejet Bep, di nuyu wa Mbacke Bawol nuyu Sénégal vraiment di len dalal jamo, di rafetlu bu baax le fait ngeen invité ma tey ma def émission bi di point de vue ci Senejet Tay ku bëggoon xam Mbaye Babacar Sy Mbaye Babacar Sy ndaw la jeune fi la jangé sama cursus élémentaire fi la le collège fi la le lycée fi la amé bac génn dem Dakar lycée dem Dakar université Cheikh Anta Diop fa fac droit lañ ma orienté won un an après ma génn dem formation accélérée ni soit dëkk cours à distance di di suivre une formation ba alhamdoulillah ay diplômes yo am xam aussi c'est un jeune qui est presque structure de zone yep maïti ngi ci lu mel ni je commence d'abord par ma zone zone 1B de saluer au passage le président qui nga xamantene moy Laminba Ba je suis délégué à la zone je suis délégué à l'ODECAV de mbaké et que aussi si football civil aussi je suis délégué fédéral je suis aussi membre si district de football bi aussi si conseil communal de la jeunesse bokuna système itam ci ndombal tank bi ma gëna neex J'en fais partie du bureau. Je suis le vice-président chargé de la commission des finances. Je suis aussi secrétaire général du mouvement Dardar. Daar Je suis le ministre maire actuellement ministre maire Galoba. Je suis le ministre-maire en ce qui concerne les partis politiques je j'en fais pas partie parce que je suis un parti politique ni ma gisee parti politique yi di ko Sénégal gëwuma parti politique pour l'instant, mon parti c'est Mbacké Bawol et que aw aussi lu Mbacké xeyna xëy jamono suñu démé ba gis parti bu nu doy doomu Mbacké yilif ko wala doomu Mbacké am ca yenn grade yi mu ci wara am ba nga xamante démocratie lay doon boobaa dinañ paré pour dugg ci parti politique mais au moment où je vous parle j'ai pas besoin d'intégrer aucun parti politique pour man sama parti politique Mbàkke la ak doomu Mbàkke moy sama parti politique. pour li nga xamante tay ay doomu Sénégal lañu di ay citoyens comme man comme kenen, comme kenen ak kenen. tay ñu yoon di len convoqué ñu wuy ji si yoon japp na né wuy ji yoon jombul man mi étant très jeune man je répondais à des convocations à la police à l'âge de 18 ans wala 16 ans jàpp 18 ans te ba léegi même jombalé mo sama je suis citoyen et que aussi je suis pour le développement de ma localité je m'attends à tout donc ñooñu nga xamantene ne am lañ tane ni nañ ak yoon nañu dem wuy ji yoon parce que nak bu la yoon soxla demal nga wuy ju ko kanta def nga wala défaut fofu ngay dem prouver def nga am défaut pour man un citoyen honnête Buñ ko convoquer ci yoon li mu war def moy dem répondre d'abord et que le monde entier tient que ni ah lépp loo xamante ni justice la mais jàpp naa ne tey réew mi fi mu toll nii am nañu justice am nañu lépp ku ñu convoqué daal pour man li la war muy homme politique muy chef religieux muy ku mënti doon soo waree yoon bu la soxlaa rek demal parce que wuy ji daal jàpp naa ne mooy lii doon farata ak ku mën a doon. étant un citoyen honnête pour man alalu réew mi ku ko mën ku ko mënti dénk tu as droit nga rendre compte bu dul tey di suba te dañ nit aussi dañu sonn ci. pouvoir mu ñëw ñu ne diw jël na fi ay milliards mujjul fenn histoire yu baree bari jaar na fi man je parle pas de de l'histoire de Abdoulaye Wade et son régime mais avant Abdoulaye bi am na ñoo xamante ne dañ leen doon reprocher jël nañ alalu réew mi mais boo xoolee au finish dara du ci xew et daal li ñu bëgg mooy alalu réew mi ku ko mënti yor te li nga ko yoree c'est injuste nañ la traduire à la justice ak ko mën a doon mais même ceux qui sont dans actuellement dans l'opposition su ñu jàppee ne ñoom dañu musal luubal alalu réew mi te mënuñ koo delloo mais nañ leen poursuivre en justice parce que alal ji tey réew mi président Macky Sall yilif alal ji Macky Sall président Macky Sall moomu ko man baaba Babacar moomu ko l'argent appartient à la population sénégalaise kuñ ci dénk boo ci defee naka sulul noonu yoon dafa war a dal sa kaw ak ku mën a doon nag que tu sois un ministre de la République, que tu ne sois pas un ministre de la République, que tu étais un ministre de la République ou non, c'est le cadet de nos soucis en tout cas alalu nous réunir. Nous ko delloo ci askanu réew mi ku ci Quand am droit à un salaire ministre de am salaire directeur de am salaire quand ci lui luy sa wërsëg nga téye ko la askan wi moom nga bay ko ci askan te aussi pour me parler de Bougane Gueye néna diw dafa nangam nangam mais aussi il n'a qu'à apporter les preuves et que aussi moom Mansour Faye moomu euh, Bougane gay dani di reproché né dafa sàcc alalu rewmi mais na traduire ma traduire Bougane gay dani en justice Bougane gay dani tamit c'est un citoyen na traduire Mansour Faye en justice ngir alalu rew moomu ñuy jaaba jolle nan jël na ko ko mu leer ci askanu Sénégalais. lolu liko waral mbekté la fierté la parce que ñun on fait partie des jeunes qui avaient élu le président Macky Sall en 2012 on avait voté pour lui en 2019 on avait voté pour lui te le dañ ko teg ci ay principe convictions certes Neex Mbacké peut-être défendre le président Macky Sall à this time c'est pas facile mais beaucoup na ci li tax tey ñu jël courage de défendre le président de la République Macky Sall benn ñaari mbir la benn bu njëkk yëgutoon département bu a bi rawatina commune bu Mbaké, bi da doon jël ay nomination di ko def ci yeneen i dëkk te duñu faale di jël ay projet itam di ko def ci yeneen i dëkk te duñu faale au moment où je vous parle je peux compter plus de six projet yoo xamante ne c'est des milliards yu mu dugal ci biir commune bu Mbacké particulièrement aussi dans le département de Mbacké c'est plus de quinze bi mu si ëppal solo nag mooy doomu Mbacké bi nga xamante ne daf ko jël muy le ministre maire Gallo Ba avant muy doon sax waxuma la directeur général SOGIP SA mais bi muy nekk DRH ministère de la santé doomu mbàkk yi bëri da leen a jàppale ay diplômé ngir ñu am xëy du di liggéey kooku tey mu jël ko dénk ko sosib boo demee jam ñaajo lu muy taaru taaru taaru doomu mbàkkee fa jaar ku mu neex ak ku mu naqari bëri lu ñu président Macky saal dénk tey bu leen laajee ay preuve mun koo jox dara mais doomu mbàkke tey boo demee jam ñaajo la fa taxaw lépp doomu mbàkke moo ko taxawal te tey mooy actuel maire de la commune de Mbacké ba pare aussi mu dem élection ànd ma ak moom parce que li tax ànduma woon ak moom dama jàppoon ne président Macky Sall defu fi lu tax ñuy jël commune bi di ko jox et franc à ça ñu dem ànd ak le maire sortant ak yàlla dogal li mu dogal Gallo Ba doon maire Mbacké te itam ñun ñu gëm ne ku mënti doon maire Mbacké ñu ñuy doomi dëkk bi li ñu war premier un numéro en ak numéro un c'est de d'aller soutenir le maire de la commune de Mbacké parce que avantage Mbacké la ñu gëm yàlla dogal nag président de la République def ko ministre cër gañ doon kaas démb ak barki démb jox ko waa Mbàkke mu jër cër jox ko ñu naan déet tey comme li ma wax bokk na ci li tax ñu koy jàppale di ko défendre actuellement ba bëgg sax mu am cinquième mandat je le dis et je le réitère waxuma ko ngir man lu may am wala lu galaba di am dama koy wax parce que projet yi président de la république jël dugal ko ci sept mois yi ci biir commune bu Mbàkke musul am loolu moo tax tey ñu am courage di défendre président Macky Sall di défendre le ministre maire Galoba en âme et conscience pour l'intérêt de Mbaké, pour l'intérêt de la population mbakoise. Lolo, du ma tàyyi si di si wax Abdou Mbaké Ndao c'est mon cousin sama doomu badjan la man doomu nijaayam la bi mu yoree dëkk bi yoree ko ci ni ko neex coobaree bopam def lu ko neex wara a liggéey bi liggéeyul dëkk bi j'étais en phase de xeex ak mom ngir lan ngir mu liggéey dëkk bi to aussi bobu il me répondait à travers des actes suma ma gis fu lampe fay wala fu wara am lampe amul lampe je prenais mon portable dem vidéo ko ne maire bi fii dafa war a am làmp fii nangam fii nangam dans la semaine mu réagir par rapport à ça donc musuma am ax moom problème te jàpp naa ne àdduna du mës a daw di daw di daw ba ñu am problème parce que relation familiale bi d'abord moo jiitu ba pare wegg gi ma wax ak cër ma jox bi ñu demee nag ba jum élection locale ma gëm ne kii am na bilan ma gëm ne itam perspective yi la àndoon ak moom te perspective yi ma àndoon ak moom c'est des projets fiables de un ba a na fi et quelques millions yo c'est vers l'investissement pour pour le marché de Mbaké et que pour aussi les les places publiques et tant d'autres nous waxtan ci ay perspectives mu nangu itam perspectives nous ñu jëm ñu choses. ko fu wóor lepp nak ci intérêt dëkk bi des fois nak j'entends des personnes dire man Abdou Mbaké ndaw daf ma jox terrain au passage pour man Abdou Mbaké ndaw sumay may terrain day jël terrain bu ñu bind Serigne Abdou Mbacké ndaw may ma là je vais comprendre que ni Abdou Mbacké ndaw may na ma terrain te bu ma mayee terrain sax wàcc na parce que je son frère je suis aussi rakam laa aussi sama doomu bàjjan la sama doomu nijaayam laa bu ma mayee terrain war na mais terrain boobu ñuy wax di ko jaaba jole mairie bu Mbacké moo doon maye ay teere def réattribution ku nekk ñu laaj sa photocopie carte d'identité nga dem déposé bi ñu déposé nag ñu bari am nañ si ay conseils ku nekk am na si yàlla dogal ma bokk ci ñi si bénéficié wu mais itam yàlla dogal itam terrain ba ma joxoon maire bu Mbàkke mayoon ma ko mu am keneen ku ko moom ma ànd ak sama kilifa gu baax muy Serigne Modou Mbàkke ñu dem fa. ba demee terrain ba fekk fa am lu ñu fa def bëri lu ñoo xamante ne terrain yi leen jox dañoo fekk sax nit def fa dara mais dañ koo nangu ñoom ndax jàpp nañ ñoo yor këyit du baax ma ne ko sëñ bi man jombale naa sama bopp waxuma la terrain kese mais lu am boroom may dem di ko xëccoo ji lu ma moom sax bu ko nit soxlaa ma bàyyee ko ko ma ne ko jombale naa sama bopp di topp lii donc. terrain boobu noonu laa fas yéene jëlaatee kayit bi xëy na boobu ba tey borom terrain bi mënu mu parvenir à le voir mais kayit bi ba tey mu ngi fi am na ko ma ko joxoon mais ndekete du kooku jëlaat naa kayit bi mu ngi fi. mais kayit bi daal heure bu borom feeñee ndax borom dégg naa sax dem na ba Jurbel pour wut ay kayit yu baax mais dañ na ko terrain bi mbay Babacar Sy moo ko moom mais wóor na Seexul Xadim su ma naree jël loo xamante ne doomu mbake da koo moom yàlla naa yées ci li ma bokk man Mbàkke laa am. suma ma joxul doomu Mbàkke du nangul doomu Mbàkke kon kooku heure buñu gisenté dina jël papier bi jox ko sama photocopie carte mu jëlaat terrain bi traduiraat ko ci touram mu am kayit yu gëna fiable mu mu utiliser ko. sama diggante ak galoba mo gëna gën franc sax sama diggante ak Abdou Mbàkke Ndaw mi ma doon andal liko jappalé parce que sama relation ak galoba d'abord c'est une relation familiale très proche suñu ñu jógee foofu aussi c'est c'est une relation d'amitié man. bi may jàppale Galo Ba kenn jàppale ñu bëree tey jàppale wu ñu Galo Ba te loolu lépp nag li ma ko tegoon rek c' est l' intérêt de la commune de Mbacké l' intérêt de Mbacké aussi tey j'en ai fier tey mbégte laa am tey ma jàppale ko te li tax ma gën si fier mooy j'ai ma famille d' abord qui voulait toujours ma jàppale ko mais yàlla nangul woon tey la yàlla dogal et que aussi dégg naa ci biir laaj bi ki ma di que lan ban prix. prix doxul sama diggante ak Galo Ba ndax Galo Ba dina ma teraanga boo xamante ne tey man damay rëccu sax li mu ko yéex a jàppale nii dama koy rëccu en toute sincérité parce que bu dee teraanga nit ak nit defal na mu ko ndax nit am na soxla bu ne ma dem wax ko mu saafara ko te en politique bokkuñu woon bokkuñu woon position mais loolu lépp amul solo loolu lépp nag c'est la famille d'abord mais daal pour pour pour pour leeral foofu moy que je suis en train d'accompagner et de défendre le ministre maire Galoba comme na ma ko xooyoon te finaalu daar daar ga à tout prix nak ku nar a dal ci Galoba da ngay jël sama bakkan doog dal ci mom parce que nak ku défendre sa doomu deuk défendre doomu deuk jambour parce que aussi ñun amuñu lu dul Mbàkke cër bi ko yalla dogal tay mu am ko cër googu ñun dañ ko woro yenole ba ëllëg inshallah allah rabi suñu rêve moy dugul ko

parce que bu nekkul derrière Galaba bëggul dëkk bi Galaba la ñu dénk dëkk bi am na ndombal tànk projet yi mu fi bàyyi woon Galaba mu ngi réaliser lu lu raw projet yi mu fi bàyyi woon. mais nous sommes tous derrière lui Galaba réussir mooy ñun ñu réussir Mbacké réussir. beneen bi aussi mooy da nga wax lu am solo muy que ne recrutement wala nangam alhamdulilah rabbil alamin te yàlla nañu ko muurloo wax dëgg fa yàlla am ministre maire yëkkati na teraanga bu rëy jox ñu recrutement yi état bu Sénégal di def nii. ñun yi dëkk bi ñu ëpp si ñun am ay diplôme am na ñoo xamante ne sax am nañ ay diplôme mais yàlla dogalu ñu bokk si mais yàlla dogal na ñun le ministre maire boole ñu ñu recrutement bi mu def mais aussi du ñun kese parce que jeunesse bu Mbacké bépp loo ko defal lu mel ni conseil communal de la jeunesse bu le président du conseil communal de la jeunesse bu est recruté par le ministre maire Galoba ki yor commission féminine bi mom aussi il est il est recruté ak ñeneen ak ñeneen monde étudiant bi xale yi si jàngoon ba noppi di chemin ñu bari ci ñom le ministre maire bolé na len ci recrutement yi nga xamante état bu Sénégal daf koy def donc pour nous la jeunesse question de recrutement taxoon ñu and ak kenn li Galaba di defal ndawi dekk bi daf ko war mu xey def te itam devoir la itam mu def ko mais tamit source de reconnaissance la wara doon nit su la joxé teraanga nga taxaw ni dit jox na ma nam war na ko tamit nit yàgg naa gis lu ko war te defu ko ànd naa xëy nit and ak ñeneen ak ñeneen ñu gënu ñu ñu benen bi moy ODCAV bu mbacké tay bo fa démé ci recrutement yi gis nañ seen bop conseil communal la même chose si structure bo laal dans le département de Mbacké ñëpp ñu bari gis nañ ci seen bop ci recrutement yi nga xamantene ministre maire Galoba def nako di wax le président de la République aussi mu gën ko dolel gën ko katanal xamné la région de Diourbel et derrière le ministre maire Galoba man je parle pas du département Gallo Ba est actuellement le patron de la région de Diourbel beneen bi aussi wax nga ni est-ce que ministre bi mu nekk du handicap ci moom pour mu liggéey dëkk bi liggéey dëkk bi kay mënta romb ay grands projet yu am ci dëkk bi yoo xamante ne boo lambee daj boo xëppee say bët gis <laughs> loolu mooy liggéey dëkk bi te Mbàkke aussi li tax ñu fal ministre maire Gallo Ba du taal ay lampe mbedd wala nangam te li mu njëkk a def il a débloqué soixante quelques million argent propre jënd ko ñetti oto ñaari oto mbalit ak benn oto vidange loolu musul am ci histoire Sénégal un maire élu mu yëkkati xaalisam dem jënd ji ay oto may ko commune am musul am ci histoire Sénégal si lu ñu toll. donc moom bi ko falee rek loolu la njëkk a def kon kooku yaakaar gi ko waa Mbàkke falee woon yaakaar googu yàlla bu mu tas te itam mu ngi koy jëfee deuxièmement mooy ministre bi mu doon dafa gën a yokk liggéeyam pour Mbàkke Bawol ndax bu dee projet yoo xamante ne dégg rek lañ si doon am son rek fi mu toll nii mu ngi doon en image maison la jeunesse bi son la woon eno bi son la woon. yenen ak yenen son la woon tey boo demee da ngay gis ñu ngay liggéey kon alhamdullilah rabbil alamin li fi bàyyi aussi taxaway bi desna taxaway bi desna da amna lo xamantene nit suñ ko wolo dénk ko moy rendre compte certes mais su lu wolo momit dénk la fexel ba ku ñëw na jàpp ne sax ministre maire Garaba mo nek ci maire bi ndax tamit amna fay yo xamantene war nañ ko régler surtout sur les taxes surtout sur les taxes les adjoints maires qui sont en train d'administrer cette ville à l'absence du maire qui est à Dakar des fois les léeg mu ñëw fi mais nous tamit nañu xool muy problème mu lumière éclairage public bi nañ ci taxaw ñoom ñi fi des ndax maire bi génn na indi na fi lu 250 lampes yu bees tax kon ñoom adjoint maire yi fi des nañu dem sur le terrain xool fi jafe-jafe yi nekk ñu saafara Benen bi moy itam ñom ñi fi nek nañu dem aussi sur le terrain les recettes yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi war a fay te fayuñu mais nañu dem aussi envers trésor ñu soñu leen ñu fay parce que gis naa ay structure yoo xamante dañ naan la ñun bëgg nañoo fay mais ça fait des mois on n'a pas encore payé muy les Jakarta man ñu ay ndaw dangoo liggéey tey ñooy liggéey buñ ñu demee ba ne la mbay ñun kat daan nañ fay mais gëj nañoo fay kon ñooñu bëgg nañoo fay ndax gis nañ dëkk bi xam nañ dëkk bi pour maire bi gën ko liggéey il faut askan wi tamit di si contribuer muy lu am solo loo xamante ne adjoint maire yi aussi ak ñi nga xamante ne mooy waa trésor aussi loolu nañ ko bàyyi xel bu baax muy charrette yi mu yeneen ak yeneen tax yi casque yeeg yooyu jàpp naa ne nañ si gën a liggéey daal bu recette bi gënee dugg détails yu bëri dina dina mën a saafaraw mais le fait mu nekk ministre moom c'est un plus c'est un avantage. am nañ si yaakaar parce que jàpp naa ne état moom lu mu bëgg a def si les moyens seront disponibles état mën na ko def na état moom du ay caaxaan te tey aussi assainissement Mbacké méttiwul. assainissement Mbacké li ñuy wax kay mooy président de la république moom ay waxam warut a nekk ay caaxaan ndax jox na ONAS euh, li nga xamante ne mooy feu vert pour ñu ñëw eaux pluviales yi nekk Mbacké ñu jéem a xool nan la ñuy def le maximum possible ba taataayu dëkk bi wàññeeku. kon directeur ONAS moom la balle est dans son camp moom la jëfee li ko président de la république wax ndax président de la république moo ko dénk na ko. ba noppi ne ko Mbàkke damaa bëgg taataa ya fa nek nga dem résoudre ko pour pour la commune de Mbàkke kon le ministre maire ci domaine bobu janam wàcc na projet yi nga wax muy maison de la jeunesse bi maison de la jeunesse bi durée construction bi ci neuf mois lay doon te chinois yaa ngi koy liggéey donc yooyu yëpp itam am nañ yaakaar que ne bala ñuy ag 2024 inshallah dina paré te aussi buñu faté né le président de la République Macky Sall est en train de faire des conseils des ministres décentralisés dans les régions du Sénégal L'autre fois, il était à, à, Inch'Allah, puis avril, mai, juin, il sera dans la région de Djurbel. Donc, nous aussi, inaugurer Dara. que ne maison de la jeunesse bi bu mu bi bi ak ay route secondaire route yi wax ni président de la République fi que fekk route bi mu jox ndigal mu def ko bu fi inaugurer parce que tamit loolu lañuy mais la république état des fois nak président joxe ndigal gis ngeen ko kérok à Sédhiou il a attaqué un ministre mais waxna deug Ce kilifa bo la joxe ndigal da nga war def lim la wax ab ab lycée ñu né lycée bi tok nañ huit ans di tabax lycée bi lolu xel nangu c'est l'histoire du stade de Mbacké on a fait neuf ans ba tey stade bi mënul pare ta pourtant lepp ngi fi donc aussi on profite sur l'occasion aussi pour dire le ministre des sports ñëw na fi keroog il nous parlait de deux mois moom ak entrepreneur bi ñu ngi koy xaar avec les pieds fermes bëgguñu nag président de la république fi ñëw un mois avant ñuy patam patamee stade bi stade bi nañu bëgg li ministre maire Galo Ba wax lépp lu ñu diggee waa Mbàkke nañu ko def estade bi de son nom plateau basket bi plateau handball bi lépp impact président de la république ñëw inaugurer ko boppam bëgguñu sax ministre bi di ñëw dañu bëgg bu ñëwee fii conseil des de décentralisé mu def Mbàkke Bawol def fi cérémonie bu rëy. inauguré ko inauguré maison de la jeunesse bi ak route yi nga xamante ne maire ministre maire Gallo Ba am na yéene def ko di di muy route bi nga xamante ne dafay romb sunu kër Serigne sëñ Ndaam Atta yàlla na fi yàgg te wér ak yeneen route yi nga xamante ne mu ngi dugg Mbàkke Xewar route sancaane ak yooyu noonu yéene gi daal yàlla na ko sunu borom mottali nit nag amul lu mbëbët mbëbët gi nag yàlla na ko sunu borom mottali mais jaarale ko ci état bu Sénégal président de la république nag bu bëggee réew mi gën ko wóolu jox ko troisième quatrième mandat. na def réalisation yi mu dikk département bu Mbacké la commune bu Mbaké, na ko def parce que on est fier le fait de projet yi ñëw ñu tàmbali mais on sera encore très fier le fait mu ñëw fi di inauguré incha allah rabi yàlla mën na ko yàlla na def. par rapport ak euh, mbalit mi ak éclairage public bi loolu mën nañ si indi ay leeral naam sax ñu gën position pour wax ko wax naa ko waxati ko muy les adjoints maires les conseillers les les les municipaux le secrétaire municipal. je commence d'abord par l'éclairage public depuis le ministre maire Galoba n'est que maire Mbacké waxuma la lampe yu ñu changé de maanaam poto yu mës a am lampe ñu def fa lampe def na au-delà de plus de 150 poteaux. poto yu mës a am lampe mu def fa lampe yu bees je parle en connaissance de cause sous le contrôle de Dieu deuxièmement aussi il da a ay lampe koñ yoo xamante amoon nay làmp mu lakk wala dara mais loolu ñiy dëkk ci gox ba wax naa ko waxati ko nañu dem auprès du secrétaire municipal Mohamed Seck qui est un jeune un homme bien qui fait tellement son travail bien muy jàmbaar di ndaw di doomu dëkk bi yàlla dogal muy secrétaire municipal bi nañu dem ci moom ne ko ñun kat koñ sàngam dafa lëndëm il il nous faut cinq lumières ou bien il nous faut dix lumières à la semaine ñu ñëw régler ko parce que lampe yaa ngi ci biir mairie bi mais nous aussi nous devons poser le problème nous devons poser le problème nag mooy et à conseillers municipaux de dëkk ci ça nous conseiller municipal mais man m'a wara dem devons ba secrétaire municipal devons sama koñ kat nga ku ci conseil mais conseil ñok wara commission yi surtout commission ils n'ont qu'à faire encore leur job nañu ko def aussi ramener. lépp maire bi mënu ko mais maire bi li mu mën rek mooy bu commission yi indee ne lii mooy problème bi mu tàmbalee euh, saafara problème bi beneen bi aussi le problème de de UCG UCG c'est une société nationale mbalit mi état bu Sénégal moo ko dindi teggil ko commune yi ne leen seen yoon nekku si société nationale bii maa ko engagé yéen li ngeen di def rek mooy présenter ko ay nit mu defal leen contrat ñuy bale di ramasser les ordures partout au Sénégal foo dem ci turu UCG là-bas mais ci loolu le ministre wax naa ko sànq bi mu ñëwee doon meeru Mbàkke tak li mu njëkk a def mooy jënd ñaari camion mbalit un frère xaritam Mouhamadou Badiane président avenir de Mbàkke que je salue au passage et que j'encourage jëkkati beneen oto jox ko muy ñetti oto mbalit maire bi ne comme commune bi des fois day am ay difficultés cinq cent et quelques millions recouvrement mënut a jënd carburant ci oto yu mag yi mu def euh, convention ak UCG léegi nag ICG moo tàmbali ko te fonctionnel bu ICG tàmbalee rek incha allah rabbi fépp mbalit nekk ci Mbàkke Bawol dina jañ terewul nag am na oto buy circuler mais quartier bu nekk ak bisam ñun ñuy suñ koñ oto bi jeudi la fiy ñëw ginnaaw raay yenn zone yi mercredi yeneen zone yi koñ bu nekk dañ leen jox benn bis te mais nag day taamu ñaari mbedd yu muy jaar mbalit mi bu ko nit ñee balee dañ koy teg foofu bu ñëwee ramasser ko dem mais incha allah bientôt ICG pare contrat yi pare na. Plus de 75 personnes sont recrutées par la mairie de Mbaké. Ils seront payés par ICG. Nous, ñoo war dem mais nag loo gis ci àdduna rek dañ ko base yu l'air. bu njëkk nit 5 mois 6 mois 15 mois, avec le ministre maire nous du ko nangu dafa bëgg lépp ñu koy ci base yu claire booy signé contrat nga xam li ngay signé ñu nga xam ko les contrats sont déjà faits li ci des nag UCG bientôt mu jot euh, budget bu jotee budget rek les travaux vont démarrer mais Mbacké mom auto yaa ngi circuler mais chaque jour ak quartier bu ñuy dem ça ne suffit pas mais alhamdoulillah nit ku neex bo fekk jee nit dina am touche boko indil en toute sincérité man ministre maire Gallo sakul ma ñëw jappalé ko man ma dem ak principe ak conviction dem diko jappalé ji mais il m'a il n'a jamais pris son portable ou bien venu chez moi ne ma kaay jappalé mo man ma xamné ngor. Full ak fayda mayna ma ma dem diko accompagner et que aussi tous ce bi ma ko apportel fekk naa fa lépp ah. mais mangi mangi mangi marquer sa mes marqué empreinte ci ànd mais andax mom parce que beurina lu le demone ci bop nit ñi nit ñi doon len diaboliser tay leral nako donc laay fi ñuy def ni defuñ ko ngir dara mais dañu koy def ngir wa xam parce que as doomu ñu ngi fep di jappale nek ci diaspora bi day bax ñu mëna xam tamit communication bi ma koy defal ni c'est un devoir daf ma war Je ne, je, ne faisais avec le maire sortant, donc pourquoi pas avec lui Alors qu'il est en train d'amener de grands projets à Baké, le fait que je assister, je suis téléphone je, serai, je suis appelé par le secrétaire municipal parce que c'est lui qui incarne aussi l'institution. Si nous avons projet, le secrétaire municipal presque moi il fait le plus. Tout le de ham. que ni état dugal na fi nangam maire bi fayit na ba loolu ñëw fi li ci des mooy askanu Mbàkke bi accompagner ko envers loolu mooy lan li soññ ñi nga xamante ñoo yor projet yi ministre des sports bi waa waa waa Agirout waa ONAS parce que ministre bi tey def na li ko war dem na président jox ko ndigal boole ko ñoom li ci des nag mooy askan wi accompagner ko ci loolu wax nag ku ko dégg ku ne di nga xam diw fu mu waxee je ne peux pas être dans, dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un gouvernement. Je parler C'est à nous, président, de des directives. que directives par rapport à Le président pas des Donc, cette fois-ci, nous, la population bakoise, la on va accompagner notre ministre, le président Dick Wambake, pour nous, nous nous, nous à tout prix suñu ko deful dinañ leen weer comme jant bi inshallah pour l'intérêt de Mbacké beneen bi aussi moy ce qui concerne l'esport, l'esport de Mbacké moy que de Mbacké est vraiment en train de faire ses pas de l'avant parce que tay buñu démé demee ba daan wax naan ASC Mbacké avenir tay on parle de cinq clubs à Mbacké avenir de Mbacké mbolo mi fierté xewar gi ak euh, comment dirais ak bokk jom c'est un plus donc le sport avance avec de grands pas, mais ce qui nous manque, c'est les infrastructures. Infrastructures, faut que nous donnions une équation et que le ministre maire garde lu il est ngir mais aussi le ministre maire il va tout faire aussi pour essayer de trouver des terrains à la disposition des clubs des clubs euh, en football civil. loolu tamit muy lu am solo loo xamante ne dinañu permettre ñu am apport financier dinañu permettre aussi bu ñu amee ay partenaires ñu mën a ñëw investir à travers club mën a am seen terrain d' entraînement yoo xamante ne mën nañ di ko di ko utiliser à d' autres fins pour mën leen apporter ay ay ay ay yeneen yeneen i mbir. en ce qui concerne avenir de Mbacké aussi dëgg la avenir mu ngi dund guddi yu métti guddi yu tar guddi yoo xamante ne ñun ñëpp neexuñu parce que mënoo yël sa doom juddule ko. comme nous nous ko comme nous ko mu juddu ñu dénk la ko nga def bu am solo nous on a fait 5 ans à la magistrature du de l'avenir de Mbacké avec le président sortant ñu def fait liggéey bu am solo équipe bi wàcc ñu ñëw jël équipe bi yéegal ko fexe ba waa Mbacké xam équipe bi seen équipe la waa Mbacké bëgg équipe bi équipe bi fu dem ñëpp respecter ko. ñu def cinq ans après on a arrêté jox le président Badian. Mais aussi il est en train de faire son mieux parce que dans la région de Diourbel. L'équipe de c'est c'est l'avenir de Mbacké présent avec aussi bien accompagné aussi par par l'autorité municipale le maire bi a fait 2 millions de 2 millions francs CFA nous avons fait que SOSIP jàppale a ko en guise de subvention a cinq 500 000 francs argent liquide donc aussi il lu am solo léegi équipe est en difficulté li nous war rek mooy ñun ñëpp constitué un homme J'appelle équipe pour que mu gën mu gën relever ndax dafa aussi taxaw di ren day aussi na président en toute sincérité il est en train de faire son mieux aussi amna ñenn ñoo xamantene ne nañu sont en train de faire leur mieux mais plus d'organisations dal xamna né phase retour yi équipe bi dina dina dina dina décoller wu pourquoi pas sax mu delluwaat national in bi mu won inshallah rabbi et aussi je lance aussi un appel solennel au ministre maire Galaba pourquoi pas la réhabilitation du terrain Garde de à partir du terrain Goney tay ba ba fële nga xamantene moy terrain basket ba amnañ yaakar yaakaar que ne waxtaanoon nañ si mu am projet bu mu si waxoon ak chemin de fer xëy na procédure bi lay top mais dans en tout cas même pour stade bi pare nous trouver ay terrain ay places yoo xamante seront praticables pour les sportifs de Mbacké parce que le seulement ne suffit pas donc Mbacké war na am yeneen plateau comme ni privé yi di defee ñoom tamit vraiment ñu ngi def seen liggéey bu am solo di jël ay nit ñuy terrain privé yi di wax aussi qui les accompagne parce que moom bu sañoon Mbacké ñëpp liggéey. bu sañoon tamit Mbàkke am ay plateau yu baax moom aussi le ministre maire na dem ñi nga xamante ne sont ils ont fait beaucoup d' investissement pour à Mbàkke muy terrain privé yi aussi na dem waxtaan ak ñoom gën leen a accompagner mais ñoom tamit ñu gën a accompagner la commune de Mbacké parce que ñoom xam naa leen mën nañu dara te am na plus bu ñu mën a apporter la commune de Mbacké parce que xale yi fay liggéey yëpp fii la ñu dëkk mais ñoom ñu ko def tamit fii la ñu dëkk kon ki yëkkati trente quarante millions mën ko investir dans un kooku tey mun a yëkkati un million cinq cent jàppale ko commune pour ay lumière wala pour nanga wala pour nanga des fois nga dégg nit ñi ne bi ministre maire Galaba ñëwee ak état bu Sénégal lu fi def kon vingt et un milliards pour trouver de l'eau potable pour la commune de Mbacké ndox mu neex comme ni ko suñu maa Mabey boote woon ak ñoom père Goumba ak ñoom docteur Mbodj xeex ci ba état bi tay reconnaître que ne dafa wara a defar Mbacké tay coût bi 21 milliards la benen aussi moy lu am solo moy centre de santé bu Mbacké bi yagatul dara wa ministère de la santé vont venir à Mbacké pour def ko lan rehausser ko def ko niveau 1 Mbacké jënd nañ sen radio bo nopi dañ fi ñëw xol yan yan spécial yan euh, domaine nañ fu mëna a mën ba mu doon hôpital niveau 1 donc euh, muy am solo ne on peut pas parler de Mbacké sans parler de la santé aussi si ndox mi aussi beneen bi aussi moi le ministre maire encore vient de décrocher un grand projet moi un centre de formation professionnelle pour Mbacké dañ ne woon 5 yu qui yi mais bi ñuy njëkk a tabax ci fi mu toll ci at mii Mbacké la ñu koy tabax muy lu am solo ñuy ñaan rek yalla nako suñu borom motali pour nit ñi gëna xamné rek le ministre maire amna yéene ci dëkk bi té tamit lepp heure bu xëyee heure bu xëyee ginnaaw fonction ministre bi ko jëf bu ko matalé ba nopi mo nga ci soxlay wa Mbàkke te inshallah allah rabbi mu yàggatul dara dinañ ñëw def pose première pierre bi centre formation professionnelle nationale lay doon pour pour pour pour la commune de Mbacké pour le département pour la région de Diourbel di jaajëfal ñëpp di baalu ñëpp ak di saluer au passage bépp autorité bu nekk ci dëkk bi bépp politicien bépp homme social rawatina suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi. di aussi wax ni la jeunesse de Mbacké le ministre maire yéene gi mu am ci jeunesse bi yàlla na ko sunu borom mottali li mu wax mooy balaa am lu ko neex dëgg mooy mu xëy lu gis Mbacké koo xamante ne da ngay xëy di toog kon yàlla yàlla mottali loolu te itam bu ko defee tamit yàlla na ko ndaw ñi jariñoo ndax tamit teraanga mën na ñëw gàtt lool suñu borom mooy dogal waaye teraanga yi yàlla nañ ko muurloo ba mun koo jariñ suñu askan ak suñu dëkk ñu ngi leen di sant yéen waa groupe Sen7 bu baax di ñaan aussi seen set gi aussi le ministre maire je le demande solennellement que ne première émission baa ngi nii mbay Babacar Sy moo koy def di sa rakk di sa xarit di sa lépp mais nga jàppale seen set nga jàppale ko source de communication bu baax la source de communication bu am doole la te ñoom li leen tax a jug rek mooy jaay image su Mbàkke fexe jaay Mbàkke fexe lépp loo xamante ne lu baax la mu am ci Mbàkke Bawol Youssou Niang yàlla na la suñu borom taxaw yow équipe bi nga àndal ñëpp yalla mën na ko yàlla na ko des def radio def ko télévision def ko site internet def ko lépp pourquoi pas il y dëkk yi di am en société yu mag pourquoi pas nous et que le ministre maire va vous accompagner incha allah rabbi merci à toute ma famille encore une fois merci beaucoup jërë